retrouvé après plus de 11 mois de détention, quasiment un an, et me réjouir de leur résilience, de leur endurance dans l'épreuve et rendre grâce à Dieu de les avoir préservés jusqu'à mon retour. Je voudrais remercier tous les Sénégalais qui se sont mobilisés pour le respect de cette échéance, pour défendre la démocratie sénégalaise et nous donner l'opportunité d'exprimer tous le choix de la personne qui va nous diriger pour les prochaines années. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen en toute sérénité, euh, avec une certaine ferveur, parce que je suis dans mon village. Et ça fait déjà bientôt un an qu'ils ne m'ont pas vu, ce qui est exceptionnel depuis que je suis né ici, que j'ai grandi ici, j'ai jamais fait plus de trois mois sans arriver dans ce, village-là. Je comprends alors tout cet engouement autour de ma personne, cette ferveur et cet accueil-là. Et je les en remercie beaucoup. J'en suis très reconnaissant et j'en suis très touché. Euh, l'élection présidentielle, dit-on, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Mais nous avons réussi à faire de cette élection la présentation, le moment de, la présentation claire d'un projet de société à une société, à, un peuple appelé à choisir fatalement entre la continuité et la rupture. Et d'ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là. Je demeure confiant quant au choix pour la rupture que je suis à même d'incarner, mieux que quelconque autre candidat. Je suis particulièrement confiant au regard de l'Alliance populaire qui nous a accueillis partout au Sénégal, à l'aube, comme tard dans la nuit et dans la chaleur euh, de la, de la mi-journée, pour nous exprimer toute leur adhésion au projet que nous leur avons présenté et qui n'attendait que ce jour pour exprimer solennellement leur décision. Et je demeure convaincu que cette élection-là se jouera dès le premier tour. Je voudrais finir pour dire aux autres candidats, comme j'entends le faire euh, en ce moment, d'appeler au calme. Parce qu'en définitive, il n'y a que des Sénégalais qui votent. Pour se choisir un leader sénégalais, et il n'y a pas de raison qu'à l'issue de cette journée, que la tradition ne soit pas perpétuée, à savoir que le vainqueur soit félicité par les vaincus et qu'au lendemain, les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs occupations pour un retour définitif à la sérénité qui a été gravement perturbé ces derniers mois, ces dernières années. ci président Bassirou sama euh, fi ma sama dëkk di Njaay Njaay biir ci département de Mbour fi samay ni ngeen leen gisee seen at waaye yàlla sàmm na leen ak métit bi ñu muñ ko euh, delluwaat ci moom ba ma mën leen fekkaat man def sama sama devoiru citoyen maanaam woote gis ngeen tamit waa dëkk bi niñ ma teertoo waaye li ma mën a comprendre la parce que fii laa juddoo yaa 44 ans ci gannaaw ni ngeen ko xamee minuit bu duggee sama anniversaire dugg na je suis né le 25 mars 44 euh, ans yoo xam ne mosuma toog def deux mois yu ma toog yu ma ñëwul dëkk bi bu baree ba bare kon bu ñu toogee daanaka toog fukki weer ak ñaar yoo xamante ni gisuñu ma ma tamit ak statut de présidentiable candidat à l' élection présidentielle nii rek la mënoon demee parce que fii sama maam samay xarit samay waajur samay di village bi ñëpp ay mbokk lañ donc euh, seen doom lañ teertoo teertu gi te nii rek la mënoon demee euh, tey nag ñu ngi wote waaye wote gu lu may mooy taxawaay bu sénégalais il y a quelques semaines pour que l'élection bi nga xamante ne dañ ko nous toxal ñu mandat présent bi fi le 2 avril. Nous boobu rendre hommage de njukkal bu le peuple sénégalais parce que ce ñu am avons fait, c'est résultat au nous la kon bu dee le héros de la journée c'est le peuple sénégalais Nous devons tenir à ce que nous respectons. sa souveraineté ce moment de solennité bu muy tànnee kan moo koy jiite def ko ci kóolute war ko def ci dal ci jàmm parce que ñi fi nekk di tànn ay sénégalais lañ ci ñi ñuy tànn ay sénégalais lañ jarul xuloo jarul xeex jarul xiiroo jarul ŋaayoo li suñu ñaan ñu koy ñaan sénégalais yi di ko di ko ñaan yàlla d'abord di ko ñaan sénégalais yi di ko ñaan tamit candidat yi nga xamante ne xëy na ni ma def nii ñu ngi dara def noonu ñu wooteeg jàmm parce que ba fi sénégalais xoosoo rek ab sénégalais ko xoos te beneen sénégalais la xoos te loolu ñu war a moytu la sénégal at yi ak weer yi surtout fitna bëri woon na fi tension bëri woon na fi féewuloo bi bëri na fi te président de la république bi ma bëgg a doon mooy bu ñëwaat doon président puso buñ ko mënee woowee noonu di rab ñu rabbaat diggante yi tappewaat xool yi boolewaat sénégalais yi pour ñu mën a jubloo ci liggéey ma am yaakaar nag ñi nga xamante ne yàlla dina leen natoo ndam boo xamante ne dañuy xam ne ndam li sas la waaye du mérite personnel sas la yaakaar la bu ñu teg seen loxo waaye du mérite personnel yaakaar gu ñu warul trahir jamais bu ñu warul wor la waaye du mérite personnel ndax fu ñuy jaar pour egsi ci fii fu metti la ay bakkane ci roj ay nit a ci dem kasu ay nit a ci fas yéene jaar nar nar cee jaar laago ba abadan loolu moo nar a nekk en tout cas man président bi ma nar a nekk euh, sama sama sama busol suma ko mënee waxee lu manam fi ma sama bët te di fa diko di ko pour mu doon lo ne amati ci Sénégal abadan diamond parce que lu ko soké fassé nañ ko songu donc euh, di water jam di water water jam di water water jam euh, te di am yaakaar ne euh, bu ngoon jotee niko sen niko Sénégal en 2000 ki fi nekkoon félicité ki gagné niko Sénégal defee 2012 ki fi nekkoon félicité ki gagné Non, la wara pas parce que suñu génération warul def moins que ses devanciers wara top scrutin bi toute la bonne foi qu'il faut et l'acceptation du résultat bu ko ju dina am de Sénégal luñ ko bi dina rafet ñu jublu urgence yi bari nañ situation dëkk bi metti na c'est des défis temps pour bañ leen bra le corps pour mën ko dindi ndax sénégalais yi sonn nañ waye inshallah rabbi tey la sen rongoñ di fer bu soobee yàlla donc waa waaw damay sant yàlla rek. BBC Euh, voilà ni ngeen ko gisee euh, président Bassirou Diomaye fay voté na